Basiru xoolal ma ñaari yar ndaanaan la ci làmb moom ñaari yar mais mu ngi dese ku doole. Basiru njëkk doole wuyu na turam wuyu na njëkk doole ñaari sol na ay caraxi ndaw di ko doxee cay ñaari yar ndeysaan lamba ngi nii eh waay ñaari yar sol na ay carax yu tuuti Bachirou yu ndaw a daw ngi koy doxee rek doole gi sotteeku ci diggi géew gi indi nañ bant goo xamante ne dafa am ñaari car bantam sale ba yoon lañ yor am salaan la tudd salaam la waaw cey Boucar <laughs> bant bi daa mel lépp lu ñuy yow da koy dindi. waaw mënuñ tëri ko jeex si digg Basiru ñaari mu ngi sotteeku tooy xeb di niin doole boo ko xoolee moom tamit nii na batt Basiru butéel bi ñuy sotti ñaari yar. ma ko ba jox ko laa ilaaha illallah Ndiaga doole ngi naan xam nga lu muy naan lu mu doon lu muy naan lan la eh doole Ndiaga Dolé ak ñaari yaar moo daal jërë ngeen jëf mbokki làmb. grand combat baa ngi nii. moo dox diggante ñaari ak Ndiaga Dollé Bachir. Ndiaga Dollé moo ñu woon ginnaaw. ñaari kanam. moo aj loxoy noonu. lamb ji. ñu ngi fii si stade Amadou Barry bu Guédiawaye fi yàgg am façon journée bu ne am na fi ne sax am na fi ñu gën koo ñu ngi ko xam ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye déedéet ñu gën koo parce que fi may stade am bari bu ki jiwaay waaw fii la man de maa foogoon ne stade Ndiarème stade Ndiarème moo nekk fële ca ginnaaw bi mooy Amadou Bari bi ñun ki jiwaay ñoo développé am na ñaar stade fu ñu neex def ca ginnaaw la stade ba nekk fa nga demoon signature ba ñun fu ñu fi fu ñu neex bëre Ndiaga Dolé ak ñaari yaar ñoom ñaar ñaari yaa xaw na bare Leewtoo bi en 2018 dafi lamb gi ci am bi doxoon diggante Yékini Senior ak Tapha Tine fii la woon Marley Wulli fii la Marley Ousa fii la woon kon fii ne histoire lamb da cee bokk. Ndiaga Dolé ak ñaari yaar ñoom ñaar ñëpp ay cargo lañ nag seen combat du mën a joxe noonu. ay bonkal lañu ñoom ñaar. Taka Dollé door na ñaari yar mbaa duñu xeexal te doorum daan mbaa du ci am ñaari yar ñëpp xam nañ ko si mën a door jël nañ Taka Dollé koy takkam lu muy def Taka palaakeelam lu muy def daan na na ko jël bu rëy nee na maa jébalu Basiru maa jébalu ba ñaari yar maa lii moom ñaari yar da ngaa jébalu lii.